waaw asalaamaaleykum sallallahu alayhi wa sallam ci jibril alayhi salatu wasalam man ko dikkalee di ko laaj yooyu mu ko doon laaj ci lislaam yëpp mel ne ki doon tontu ba mu ca noppee mu sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki doon laaj kat daa mel ni li mu doon laaj sax moo ko gën a xam ki mu ko doon laaj loolu day dellusiwaat ci mbokk mi daa mel ni mbokk gi ñu bokk dundu xasida gi tax na li muy laaj yëpp bu ñu ko dellowoon kàddu gi mun ko leeralaat waaye sëriñ Bay Jaxate daa wax ne loo xamul baatin ba doo ko fonk te loo amul pas-pas ba doo ca bokk te mbindum sëriñ bi moom xas xas siida maqsad la boo xam ne jublu gi kenn xamu ko ku dul moom waaye nag am na ay tasrixaat yu mu ci def yoo xam ne la sëñ bay waxam ne te sab sëriñ jox na la yóbbal bu rëy soog a dem xamal la diine bu wér soññul te soññe ñu wéy kon daa mel ni loolu mooy njalbeenu li ñuy jiital suñu kàddu mu mel ni kon loolu farata la la ci jiitu nag mooy xasaayid moom day mbir moo xam ne diggante matxula ak salatu ak sukku ak doam yooyu nag lu ci ne boo delluwaatee ci alxuraan am isnaad wér boo xam ne danañ ci mën a sukkandiku bu yëg ci ndigalal suñu borom itam mooy sëriñ bi nga xam ne moo du tagg muy kenn moom kat fekkoon na fi ñuy tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa itam ay tàggkat lañu woon ni ki mu leen tuddee ci yeneen xasaayid yi ñooñu itam li dox seen diggante ak sëriñ bi mel ne am na diggante bu gudd gudd gudd waaye pas bi mu jógee woon moo tax li sëñ Abdul Ahad wax wax ne mëneesuta wax ne daa xëy mëneesuta wax daa ngont mëneesuta wax daa rajaan ngir ñi fanaane woon a dox yendoo dox amuñu ci lu may dañoo yegg rek fekk ko yajiduni inda al malik al muqtadir kullu waliyin lil jinaan yabtadir ana mu ñëwee ci Zahira dafa wax ne ndax asaman si mo doon tiim sama sang ba rasulullahi sallallahu alayhi wa ñu ne ko waaw mu ne kon baax ndax suuf si ci la doon dox ñu ne ko waaw mu ne kon li wut ci moom lépp danaa ko la rasul liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam da ngeen jëway te tawatul balaaya suratul laxwaali la am ci loolu dana wax ne maa ngi namada bu islam sëf leen ma jóor ne ma danaa ko jàpp loolu nag liggéey bi def na ci loo xam ne ni mu waxee ci weer bis bii rek wala ci weer yi wax ne ala lati madaxta min rasil xurum الشادس الشهور وهو منكره نون لك واخا تي وير ييب با مجو مو واخني ولذلك شارد لي الشهور والايام كالاسقاص بفضل من جاد بالاختصاص لولا بس بو نيك دا دخلك سانغام صلى الله عليه وسلم تي نام واخي وون نك ابكار ام داحين ابكار مدحين لسيدي دا خاني وقت وجو جوت مان كوي فنتال اي خيت تاغ يو خاني وقت وجو جوت داكوي داكوي داكوي ديفال تاج موي داكوي ياسلات li mboxoor yi di bari bari bari bari waxtu wu jot rek dana dana dana dana dana dana ci defaat yoo xam ne ay tasrifaat yoo xam ne ci teg yi euh, noonu muy defee nga xam ne bu waxtu julli jotee day yeesalaat njàpp ma soppiwaat yére ya ngir buur kenn du ko jox ndawal bu màggat noonu la daan def diggam ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam da ci doole ki itam mooy moom ci boppam ah ñun de ñoo koy naw ak yéem ci ay tagg waaye moom la mu wax mooy أمدحه بالنظر والنظام ما دمت خادرا على الكلام أنا أسخ دي كو تاك تي نظري أتي نظامي ليه سما لامي ما نجي يكتو دي أم كاتو ما ما ما نكو لاجي نكو ندخ نجي تون دان نتاك برسول الله سامي لطل لين نكو دان تاك موني واو دان دان نكو تاك نون waaye nag ñoom li ñu warole mooy sama lépp la yàlla mën te ñoom am na ci ñun seen borom seen yooyu nanguñu la ca jiitu mooy وخلي كعب بن ثابت مي خا خني موم لاي واخ سي كعب بن حسان والبزير قد برعوا كلهم سعرهم نور واسرى فما بلغ العلم فيه انه بشر وانه دونه عقل وافكار كل خا خمنا لي كعب بن ثابت صار الجاهليه كان منو جو لو جيتو لم دان واخ سي عرب يمن واي نا نياك جيم نياكو نجم سي يونس صلى الله عليه وسلم موتاخان waaye kéro bi nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam wax na ne mom day deretam dagan nañu ray ko kéro kaabu dafa muru kalawu bu dar ci xalkalam bi mëno ko gis bu dul bëtt fekk amna na wëlëreem boo xam jamono yi sallallahu alayhi wasallam di wax loolu daa bokkoon ci sahabi yi te ñom ñu fonk ko le woon sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee loolu kooku daal di juk rëcc ko ci guddi gi ñëw ci kaabu ne ko sallallahu alayhi wasallam sallam bi nee sa deret dagan nañu ray ko nga xamné sahabu bu lu jëkke gis danaa rey bi mu ko waxee loolu daal dina ko man nag ci saxaabi yi laa bokk waaye damay mottali ci kóllëre kon jéego yi njëkk yi yii ma andi ci yow mooy jéegoy kóllëre ndax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fokk kóllëre waaye bu suba bu ma bu dafa dafa dafa muuru kaalaw bët yi rekk di feeñ bi mu ñëwee ci sallallahu alayhi wa fekk ko da ko jox loxo ne ko ndax yow Muhammad la tooñ da nga ko jégal mu ne ko ku ma tooñ dina ko mu da nga ko sallallahu alayhi wa sallam teg bàyyi sa mu ne ko bu ma tooñee bu ma jigloo dana ko jigal gànqu daal wal bishru inda rasulillahi mahmoud ba way yaa egg nga xam ne way yu yéeme la yoo xam ne bi mu xuusee ci way yi sallallahu alayhi wa sallam dafa mbégte moo xam ne dafa mujj mbub mi mu soloon da koo summi jox ko kaw nga xam ne wax lu yéeme la nga xam ne waxtu woowu wa wi ñu ko waxee na xaram ci ab julli mu di ko kon nga xam ne tagg lu yéeme la te sëriñ bi ñooñu yegguñu ko لكن ون الدهر عن أمدائه الشعراء ون يل أسابيع عن مسن الجرم سما يرجع ون تتج صلى الله عليه وسلم لط من تتج كل لطلني لط قتل من تتج ون بقي جل بارم يكتي كو بقول تاج أزمان لاج أزمان واي لول دامين أم نسنا لول نيوم لا واي مو لم وح موي وقت وحمين تمرين تتج صلى الله عليه وسلم مد ابتساما لحبيبه الشكو من خلمي حيث جراني أم نعم الشكو waxtu ma yëkkatee sama xalima gi jëm ci tàgg ko sallallahu alayhi wasallam day ànd te moo muuñ moo xam ne du du dootu ànd ak saloon mujj na sallallahu alayhi wasallam bi muy def loolu mën a ikul kiram yëpp dañuy ànd ci mbég te moomu di jaayu isa katafto taasul baaxi wa sabaxat mën a ikul mujj na arsh ak kursi yu dañuy mujj di jaayu ci mbind mi mujj na mboolem xulubu alxamale al arsh malaayika yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo yenu arsh ñoom ñëpp waxtu wu déggee loolee sallallahu alayhi wasallam def ci mbindum sëriñ bi ñomit it loolu da leen di yobale kon nga xam ne tag lu yema la digam ak ki ko doon defal noonu sallallahu alayhi wasallam sallam ne ku julli ci man ben ma julli ci yow fukk julli ci yow fukk ma julli ci yow téeméer ku julli ci ma julli ci yow junni wax wala fii man ali alfa sallal mun wa fi jinaan yul fa noonu ma nga xam ne loolu ndigal la wa amaral amlaaka aydan bi sala ali saidan bi zalika wala loolu kon ndigal la lu suñ borom jox malaayika yi jox ko mbindeef yëpp nga xam ne bu waxee sallallahu alayhi wa buñ tuddee turam boo ko waxut dañ lay boole ci ñi way way nay فقمت خائلا مع امتثال امر الجميل جل عن مثالي موتخ موم مو دال جوم نيوكيت ندير جيفي ديغال دولاي داخ يا امير بان نصلي على داخ غنا سون بروم مو ديغ لين ديغال يوي موتخ وايا تاغ يوي كات ديم نبا موم مو واخني واخوما تاغ يي بوغوما واخوما نوسي دارا ديكو تاغ واي سوما جيلي لول نيي واخ اي كيت با تيكو موي خيرتاس باي واجا تاغ صلى الله عليه وسلم سا بروم داف ماي حمل fooy yi nga jël ngir teg ko di ko waaj a tegal defal naa la ci yoon boo xam ne moo gën a kawe mboolem jaamu yàlla yi te xalima gi daw na واجعل قراطيسي به وخلم خير عبادات وخير سلم وتغنني بها عن التصبب يا من حماني عنيدا والتمم mu jël xalima gi suñ borom defal ko ci xalima gi mooy la suñ Moussa Ka waxam ne sama xalimaay sama kanoog manaafiam madaafiam faw xana kun ci lay defee manaafiam kon loola nañ lañ ci war a déggee mooy kon wërta diis la ndax ginnaaw faraid yi ak bi nga xam ne moo di ak bëggam waaye xasida yi mooy jëfam ndax alxuraan moom daal defanteeg moom lu tax mu sañ a wax ni mu littuhu hadiyatan wa sadaqa wa amana waliyu di mu nafaqa loolaa tax suñu borom joxe ci fànn wu ne waaye lii nag mooy jëfam alxuraan mi bind ko wàcce ko suñu wàcce ko ci kaw ci suuf mu jógee ci kaw asamaan xasay di sëriñ bi sëriñ bi bind ko ci suuf mu jëm ci kaw asamaan si noo ko jàppale mu yéege na kon war naa am lu mu jur si ñun li mu war a jur si ñun mooy ñu taxaw jàngataat lan mooy xasay ak nuñ ko war a fonk wahab li kulli man atana biha aw aana ala tahsiliha wahab li kulli man yaqrahu saadatan kon daa mel ni waris na koo jàng waaye waris naa jógit ngir fonk ko waris naa jógit ngir xam ko sax dana dana dana jafe waaye xam ci li tax nuuran waaye nag lisi taallumi موم مونا لا يلان واخ نس وصلح بها صدور من تعلم وصلح بهم لا تقتريهم ظلم كون بون سادن وريس نتا خم لوم واخ لا تي دولي كي تام غنا موم سيرين ما واخ ني وارفع لمن بها يضل ذكرى وجبر له القاطره وصلح صدره كون ورنا ام لير بي بالي سي نون واخ تو نكو دي جانغ وخم ني ورنا تخ لو بون بون ني مان سي خم لو خم ني كوكو جانغول مونو كو خام داخ غارانتي بوبو سيرين بي موكو واخ ودافع بي قبل التوجه الى عين الى دو قريه انت المعين كون لو بون بون وارث نتي تاري كينن كودول كي جانغول خاسيدي فانكل كي ناك نونو كو ني ني جيتو وون سي سيرين بي واخي وون ما جيل سي سيرين شيخ شار واخ ني سيرين بي مسنا ام بيس مو واخ ني شيخ مصطفى الكريم شيخ عبد الفاضل ñenn ci mag ñi lal ba sama romb jaan wax leen ni dama bëgg koo xam ni am nga xase yi nga indi ko teg fii ci yéen buñ ko defee jóor seen xase yi sarta moom mooy xasida gu ngeen moom bu ci bopp buñ indi xasida yi mu wax leen ni yi ngeen jóor ak li ci seen dënn sa borom daf maa xamal def ak dindi mi ngi ci xasida yi bi dhil qasidatu taraktu jalba bika wa daf'an qalaban wa kon def ak dindi mi ngi ci xasida yi boo ma ngay tàggatu koo xam ne la nga am mokkal ko di ko jàng wala nga di ci def gët su ëllëgatee boo tollee ci ñu di la waajal xasida yi ñooy tollu ci barab boobu nga nekk leeralal la ko ba fa sab gis yëpp lépp loo xalaat ñu andil la ko ba andil la loo xam ne sama xel sax eggu ca ba di ko xam su bis penc ba xasida yooyu jiitu layil la fa sa borom ba saw lay jëm nga agsi jàll dugg kon lii du lu ndaw fonkeel gi nag war naa yegg ci fañ teg njaboot ak sëñ Tuubaa gi rek ñu teg fi am na kenn ci njabootu sëriñ bi kuñ masaan laaj ne ko lan mooy xasida moo ñu xasida yi mooy sëñ Tuubaa njabootu sëñ Tuubaa gépp sikkiwut ne ci jëmmi sëñ Tuubaa ji lañ jógee ñu xasa te loolu ñuy wax way juru am nañ ko loolu ñuy wax yeneen it am nañ ko xasida yi nag ñoom sëriñ bi rek te loolu li ci firnde moo waxal sa boppam ne lii ma leen di jox de xam ngeen nan la demee fa ko déedéet mu ne mi ngi mel ne sama yàpp yaram wi la dagg di leen ne dégg na si am saa saalih mu nettali mu nekkee ci géej gi di liggéeyal borom dafa jaayante woon ne bu ëgsee ci tur yàlla wala turu yonent bi sallallahu da koy xonqal daaju xonq la koy dindi diggante boobu nag daaju xonq ji jeex muy def bu ëgsee ci tur yàlla wala turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu def loolu ñuy wax espace bàyyi ba mu def yu baree bare bari xelam dem ci ne deretam ji kat dafa xonq muy def bu ci ëgseete ne daal di sat xalima gi ba mu ñëw mu ne cat sidit gi deret ji toq mu di ko dindi kon lool lu ndaw lu rëy la war naa jur jur ñu jàppe ko kon jëmmi sëñ Tuubaa ji ndax sëriñ bi buñ koy misaal day mel ni melo suñu borom la ame du du koo xam ne kuñ mën a laal la wala kuñ mën a làmb la ci ni muy waxee waaye li sëriñ bi di def moom la xasida yi def moo tax tolluwaayu sëriñ bi na am ndax sëriñ bi kat jumaay ji la waxoon ak doomam yi ak xasaayid yi jumaay ji tafeexi sëñ Tuubaa tax nga mën a am tafeexi man caa jëf lu toll ni benn mètre kan njabootam ji ku yëg na ni fonkeel gaawaar suñu diggante ak ñoom def nañ ci di leen teral fonk leen jàpp leen ni ñu jàppi sëñ Tuubaa ana moo tax xasida yi bokk ak ñoom benn tolluwaay te jàppee ñu leen moom kon ñàkkul dégg tax xasida yi fees fi ñu teg Cheikh Moussa Fane teg fa Cheikh Mouhamadou Fadal ñoom wax ne nañ leen nañ teg xasida yi foofu. ana lu firnde ci loolu maam Cheikh Anta mas naa am bis ci jamonoy sëriñ bi mu wadd jànkati xasida loo defante ñoom ma delloo la ñii kenn doxul sama diggante ak ñoom. mas naa wax Cheikh Moussa Al Karim ne comme Cheikh Cheikh Moussa am nga doom bàyyi yoo xam ne waroo sant dong leen war a mooy sama jànkati xasida yi mas naa wax sax sëñ Ibra Fall bu ba ne ko Ibra Fall géwél bu demee ci aw xew lu ñam wa dëy dëy dëy tax géwél a fante te yéen ñii yéene samay géwél kon ku ni ne sëriñ bi kat amoon na ak fiir fiiraange ci diggam ak xasida yi waaye amoon na fiiraange ci diggam ak ñi ko daan taxawal liggéey boobu kon lu nu war a jàngate ci loolu ci salaaj bi mu yëg ne jëmmi jël sëñ Tuubaa ju taxaw la fonkeel gi war naa yegg ci jàng xasida ba noppi gallax ndi ko tuur ko ci duus sax araam na ci ndax waxtu boko de mana malaikatul kiram ni yi ñu ngi jëkkante sa lor waxtu boko de jang sallallahu alaihi wasallam, mi ngi tew jël loxoom teg ko ci sa bopp ba keroog dina waxtu boko jang malaikatul kiram kiraam yëpp ñu ngi wacc ba tolloog asaman ci di la di la yi muju de mujj du say wax. mboolem jinne yi gëm yalla yëpp ngi yow di ko ko seen bi wax ci ci waxtu wo ngi di jang karim kon la jaadu ñu yek ne nit ku am ngor te am jom warna fonku waxi ginnaaw bu mu ko gëjee gis laa waxi sëriñ bi sëriñ bi waxam ci xaside yi ma jël ci bayit boo xam ne dana de sëkk ci ñu xam ni xaside yi ni ko Cheikh sax Sane waxee woon ne am na ci yooyu ba mu leen bindee ñi ngi taxaw di sabbal suñu borom ba keroog ñuy wal biftin am na ci yooyu ñi ngi taxaw képp ku nar a xotti ormay lislaam ñu jëflante ko te loolu la ci firnde mooy lam waxalan boppam wax ne kanaami dee diye bi wa xale mi jaale mich la assurfin wa réew mi kon gannaaw kattan googu la amee doole jooju la amee war nañoo yëg ne kon xasida yi kat am na lu mu war jur ci ñun loo xam ne buñ ko yëgu waxtu wuñ koy jàng itam war nañoo doy loo waxi sëriñ bi ci xasida yi noonu mu waxee ne waxtu woo koy jàng sallallahu alayhi wa a ngi toog malaaka yaa ngi toog waxtu woo koy jàng kenn mag kenn ci mag ñi sëriñ Mouhamad Lamine Gueye Firdawsu yar ndax maa wax suñu Lamine Gueye Firdaws wax na ko sëriñ bi wax na ko ni am na genn yenn ci xaside yi yoo xam ne mën naa wax tur bi ba kaana xam sëriñ bi wax ne ne xaside boobu waxtu wuñ ko dee ko dégg saw yaram araam na sama Cheikh Abdoul Khadir Cheikh si Moussa si mas naa mas naa ñëw di ko jàngal si bi mu ñëwee fekk mu fatu bi mu ñëwee ca Bagdad bi mu ñëwee tàmbali yëkkati ba kaana xaqan Cheikh Abdoul daa génn wax na loo xam ne déglu gi rek day far bàkkaar ndax moos mat lay déglu kon xasa it bi duna ndaw jamono nag buur na jëm ci jëmin woo xam ne day mel ni aw xewet la waaye nag jaadu nañu xam nuñ ko war a fonke ndax loolooy tax ñu man caa jëriñ ana luy loola dañuy jël waxi Sëñ Mbay Jaxate andi ko diggam ak mbokkum taalibeem ak moroomam wenn arafu xasida wuy fanaan ci dund góor yàlla góor yàlla googee war naa fexe ba bu amoon mbuppi or sax war ko xoobe jëmmam joojee ngir ku ko gis yi nga arrêté xasida yi sëñ Tuubaa ci jëmmam ji sëriñ si Amadou Gaynde Fatma bi muy defar këru dara njariñ bi ci jamono yooyu miire ko ñu naan sëñ Cheikh ah waa fii jamono toll muy def lu toll ni mu ne nit ñi xamuñu zahir batin lañ xam batin zahir lañ xam ci fonke gi la la la fi mu ñu war a yegg moo xam ne ku fi dikk digg batinu sëriñ bi boo ñëwee fekk fi ay sàkket yu tas يوم نجت يأكله ويبني يفك فيني لكن كيك نمك تزاهر بلا باخ ولا أم باتين بلا باخ ولا أم زاهر دواي زاهر بلا باخ ولا أم باتين كون وارس نكو تكشي أي باب يو يو تارو يو تدري يا حمد دانو نيك نفهم كودنا جي خسدي رك تخن من شيء جاني نفهم كيف فساد لشي نينكو وارا جاني نعو ناتو لامي نكير نتشي كيل فيي كوا حمد نسنتو أمو جروي جرام نعيا بيو تدو ترام وانا نعين غور غور لشي أم كسيدي ndax sëriñ bi kat wax na ne xasida yi lu ngeen ci am ak lu mu bari bari bu ngeen tollee ci barabu waaj war a fekk seen borom suñ borom suñ tubaab dana leen may tey xeex ngeen mokkal lépp jariñ li lépp danañ leen ko danañ leen ko am mu dellu waxaat ne man day xasida yi nga xam ne yéen a koy jàng ma di ko digtal asamaan si ak suuf si dem naa ba yëg ne bu ma toogee waxtu wu ma ko digtalul asamaan si ak suuf danaa ko lay suñ borom daal di wax ne xanaa xamu leen ni fiir yi saytaane fiir yëpp ci xasida yi ñuy digg ci la ko suñ borom di raxale lu gi ñi dégg xasida yi mooy raxal mborem fiir yi seytaane fiir te lolu sëriñ bi wax na nafa dina si hiyal al khannas mutahhir mu tahiran kulli lil adnas tilaawatul Qur'an dafa am di ko sëriñ bi wax ci yeneen téere yi dulu sa abdin min makan mutahhir noonu ma ko waxee ba mu yegg warula am ak ci bu ñu yëkkati xasida yi da tolloog rek li day salatu ala nabi dana am ay ay ay ay ay roxsa yoo xam ne danañ la ko mën a may ngir nga di ko def muy tolluwaay yi ñuy toll di ko jàng ak yëkkati waaye kon li ñu war a yëg mooy ak fonkeel ak xoroma lu nit am ci loolu la ko amee mooy ñu yëg ne kon gannaaw ba sëriñ bi boole nañu loo xam ne suñ njëriñu àddina ak àllaxira ci leen kenn ku nekk gis nga ci intérêt personnel bu tax waxtu jot ak loo ci mën di dégg nga ne ci kon jaadu na ki jàngi xasida yi la war a jiitu ci moom mooy ku gis jëmmam jëmmam tegtal jëmmi jànkati xasida wër ta def ku toroxlu koo xam ne ku ko gis da ngay foñ xasida wër ta def ndax am na ko wax ne bu ma leen gisee ci seen melokaan yi di damay bég ci kenn ci njabootu sëriñ bi daal di wax ne yéen kat sëriñ bi moo bañ ci yéen ak ràgg moo bañ ci yéen ak rafle kafe te ni zamaan wala waryama saxa bi noonu la ko waxee ndax teerub xasida yi sëriñ bi wax na ne bu amoon daay or wala day wurus ci li koy bindee kon yeggal na foo xam ne ci moom mënis koo wax kon warees naa fexe ba fonkeel googu war a am fonkeel gi yegg na ci wareesu koo jël di ko lem wareesu koo jël muy sifonde wareesu koo jël di ko teg ci suuf di wala nga jël ay téléphone di teg ci wala nga jël ay verre lu ne teg ko ci kaw fonkeel gi war naa yegg ci ñun la gën a rafet ci ay dencuwaay ñu di ko ca denc ngir sëriñ bi kat fa jamono tollu gaal yi gën a na cher te gën a na taaru moom lu daan liggéeylu di ci denc xaside yi daan jël gët gi gën a di ko ci def bu ko bësaa bëgg a yónni nit sax ba mu war ko teg fi barab day ko dooru jël xaside yi ko kon fonkeel googu la mag ñi amoon ci xaside yi ba tax ñu mën cee jariñ waaye tawfeex yi am téeméeri xasa it mag ñi amaana amuñu ko woon waaye yeggoon nañ ci ak fonkeel xaside yi foo xam ne seen roox yi ñoo diggante woon ak xaside yi te danaa si joxe firnde daa ko moom soo laaj lan moo tax mag ñi àndoon ak sëriñ bi ñoo leen gën a fare ndaw dàq leen baat ëpp leen matériel mu ñuy jànge gën leen a jekku ay daaj te ba léegi lañ daan jàng mënuñu koo jàng ma tontu ko ne ko ab xol mooy jàpp ab xol bu xasee set rek lépp set ab su ab xol suñu borom xajul fenn ci nit fu ci ab xol mag ñi nag seen ruux yi dañoo setoon ba ruux yi doon diggante buñ xasee daaj mboolem yi yi yi takk ci ab xol ba tax ay noonoo di am wala su nit jàngee lam def nga jàpp ne da ngaa war a wujjeeg moom wala nga jàpp ne loolu dañuy yëpp day feeñ ci am jàng te loolu day day delluwaat ci ak dégg cosaanul baat bi itam bu delluwaatul ci sëriñ yooyu yëpp dafay defaat ay tafsir di jeexantalaat ci ku koy dégg yëpp su baree ba bari rek nurul ilan day tux su ko defee lëzza neexidu moo mooy des waaye waaye raxaan yi nu nu nurul ilahi bi muy dundee day day daal di tuxuwaat te loolu mënees ko am ndare bu di fonkeel gi daal kon lañ war a def mooy yëg ne lu rëy lanu sëriñ bi bàyyil loo xam ne wari su ko jàppe ni livre boo yor wala journal boo yor waaye na ko fonk fonkeel bu yegg ci bu barab bi nga jëm yor fa xasida gi sax dana du tegginu ci yow ndax barab ba nam bindoo la mooy nga denc ko la jaadu mooy ku la gis yëg ne yëg ci sa jëmm yëg ci sa yoreet bi nga ko yor ak fonkeel gi jeexantal yooyu boo waxul sax mu yëg ne kii kat xasida def na ci moom dara loola nag du mën a am ndare bu di fonkeel gi kon maa ngi soñ soññ sama bopp mu soññ mbokki teel bi yëpp ci yëg ne lu sëriñ bi wax ci njàng bi wax na ko ci déglu gi wax na ko ci fonkeel gi ku dégg wax sëriñ Abdul Hakim dégg nga mu wax ne xasida yi de fu ñu koy jànge ku ne tekk di lu fañ lay fale doo ko yëg waaye fu ñu koy jànge ngay wax leneen maanaam waxi àddina wala nga cay boroxal leneen fañ lay folle doo te wal iyaasu billah ci sawaanu àjjana lañ lay yóbbu muy kon nañ yëg ne alali sëñ Tuubaa ji gën a taaru li gën a ca lam jeexalan ak dundam salaatu setta bi marti setta xaara mi daa ji xaarafu addi ngir lan an madi addi bi buddi la rek kon wares naa jàngataat li ñu yor mu rëy ci ñun fonk ko ko fonkeel gu toll ni yëg ne jëmmi sëñ Tuubaa ji aw daj lañ ci yor su ko defee loolay tax mboolem lii njëriñi xasida buñ yëgut ci am تافيخ من تي جانغلو باري صاف وين عرف ندخ سيرن بليم دون نين لب ان هيت بيعي بجه وجه هدي تلم بالحروف يا باخيا اللي كان بمتل الغرف وين حرف رك تي سيرن بي وجعل حروف تي حروف يا تي لي جنة كون لي ني وود لب من نكو ام تي وين عرف خسي دي واي ميغي ام تي فونكل غير دو اك مان بغيل جي دغ لا واي نا باس باس nit ki li mu bëggee a jariñu àddina ak alaaxira mu fonk ko da koy mat ndax ñàkk fonkeel gi yegg na ci ñu jàpp ne xasida yi ñu waree a durus rek lañ war a jàng ñàkk digg waxi Sëñ Tuubaa la loolu ndax bu fekkee ne bu boo boo demee ci ah, ci barab di jënd téere buñ la waree bu dee ci ko téere buñ la waree tasawudu sixaar nga wan ko ginnaaw wala nga nga daanaka nga defee ko noo xam ne da ngay jàpp ne jënd am nur daarin moo loolu ñàkk digg waxi sëriñ bi la wala nga nga demee ci noo xam ne ku la gis jàpp na ne masalam diine war na la ko laaj te amaana tasawudu zixaar ubbi ko dong di ko yore yooyu jàpp nga ne loolu jàpp loolu ñàkk digg waxi sëriñ bi la te xasida yi ñun ñiy jàngi xasida yi ñun murid yi la ko sëriñ bi xat na xat talabu nazman xawaata adduba liyata addabu xadaaka wajaba ñan ñoo defan loolu mooy al muridu sadiq mooy attabia mooy ñu toppoon ci ginnaaw sëriñ bi te ñooñu ca lañ bëgg a bokk kon fonkeel gi war naa yegg ci kenn ku ci nekk jàpp ne lu war a jiitu ci yow mooy li mu sëriñ bi bëggal suñ bëggal ñu bëggal ko suñu bopp lim nu bañal muy gàccee ñu bañal ko suñu bopp te sëriñ bi ma wax ni yaa ayuha shubaan in qiftum xajan fa qaddimu taalluman ala al amal fa qaddimu aqaidi sunniya mujaradatin an firan wa min kon fonkeel gi war naa yegg ci ñu jiital téere yi xasida yi xam-xam yooyu nga xam ne mooy tax yi ñu war ci suñ digganteeg suñ borom ni ko sëriñ bi waxee yooyu yëpp ñu fekk ko waaye ak ñàkk xamay tax ñàkk xam xasida yi tax nga gis koo xam ne buñ doon jàngi xasida nga jël jukk alxuraan jox ko mu mu attana jàpp ne da ko war a delloo wala mu attana jàpp ne waru cee xam dara wala nga ñëw këram di ko laaj ab kamil mu jàpp ne ab kamil war ko am loolu ñàkk a dégg xasida yi waaye boo déggee xasida yi da nga dégg sëriñ bi wax ni wa man abahu turida da xasratan wa nadami ci gis bu nga koy xamee wa man aradul qurba min mawlahu al qur'an la yansahu ci doo ko gis ci alquran ci biir xasida yi nga koy gis xasida yi moo lay jàngal li war sa digganteeg sa borom xasida yi lay jàngal li war sa digganteeg sa mbokkum taalibe xasida yi ngay durus am na ci yooyu ñoo lay jàngal li war sa digganteeg alquran moo lay jàngal li war sa digganteeg sallallahu alayhi wa moo lay jàngal li war ci aadaab yi nga xam ne moo dox sa digganteeg sa borom yooyu ay téere xam-xam la yoo xam ne bokk na ci li may delloowaat sama sama sama nawle yi ñu delloowaat ci yooyu ndax yooyu mooy yi nga xam ne moom la cam si mën a jiital ngir ormay xasida yi dégg gi war xam cee ci luy tax nga man cee jariñu man cee jariñi yaakaar naa mu ngi gën a gaawee ci yooyu waaye da nga gis ci mbokk yi koo xam ne wax dëgg yàlla jàmbaar la góorgóorlu ci waaye moom day dem ba jàpp ne sax sëriñ bi bindul yi loolu ci moo mooy njëlbeenu ñàkk a fonk te mboolem ni sëriñ bi bëgg ku ni mel dafa ñaan suñu borom xaside yi di ko def ci nit ki lu sëriñ bi di ñaanal boppam ci xaside yi ñun ñii lay gaaruwaale ci loolu واشهد بتوبتي من آفات جميعها ومن أذل تفاتي والتمح يا خبير كل من جلا وكل ما اشتترى منها مسجلا يا يا كنت سعد ولو أم بين أي بنفس نفس بدرس بدرس باب أم نحكي على فعل المعلم أحد ينكي يب رزا يب مصاب لكو أي أي أي أي فضائل كان لنك كوارا يك موي بكل تومال سرين بي ki yër xasida yi daal li sëriñ bi bëgg ci moom bu mooy bu ci noppee mooy nitu diine ku mat nitu lislaam ku ma koo xam ne mboolem lu ñuy laaj ci diine rek kooku lañ ko war a laaj waaye wax dëgg yàlla kersa la lool ci nii ñuy yëngoo ci xasida yi mu mel ni daa am yu sëriñ bi bind am yooyu bindu loolu moom bokk na li ma gën a marqué loo xam ne bëgg nañu delluwaat ci bu baax a baax euh, su ko defee mbokk yi loolu ak fattu lay doon yenn saa yi ak réer waaye aal wala ak kawe moom munta yegg ci mukk ñu jàpp ne yooyu moom wëri su ko jàng xam naa ak ñàkk xam lay doon wala ak fattu wala ñu jam ba jàpp ne weesal nañ ko suñu bopp waaye déedéet ndax sëriñ bi kat la bëggoon ci ñun mooy ñu doon al insaan al kaamila te loolu du mën a am ndare bu du ñu delluwaat ci mbooleem ay jàngaleem su ko defee loolu ñoo koy dégg mbokk yëpp ñu gën a waat ci xaside yi ci yëg ne li xaside di def mooy nit ku mat ci lépp koo xam ne bu demee ci ay bokkam moo ciy man su demee ci ay wéy moo ciy man bari bu liggéey kay moo man diggam ak lislaam moo cay man kooku li sëriñ bi di waajal waaye jànkatu xasida bu ci sax dara di des ci moom ci ay jikko loolee tuumal sëriñ bi la te kenn wër ta doxale sa diggante ak sëriñ bi tuumal ndax mboolem lu sëriñ bi bëgg ñaan na ko ci xasida yi kon bu ci nit ki desee ñu am lu ñuy xebat ci moom ci diine wala ay ak bokk wala ay wéyjur wala couleur di xebat ci moom dara moom moo des waaye xasida yi moom lépp a mat su ko defee yooyu mbokk mbokk yi lu ñu war a jàngataat la yoo xam ne ci biir xasaay ji la nekk yoo xam ne day mat a bàyyi waat bu baax baax yooyu rek lañ doon mujjante la suñuy kaddu ngir fonkeel gi da wara matale ci ci fan gépp rek wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh